Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. waaw ginaaw buñu len leen ziaré len yeen ñep di len ko jalé di ko jaale peuple sénégalais bi yépp suñu téway fi liko ko sabab moy d'abord suñu digënté ak ki génn àddina di Ousmane Tanor Dieng mu nekkoon suñu mag nek suñu xarit ëmbal ñu cofeel go xam ben situation politique musu ko changer. ndax mom nekkon na pouvoir ñun ñu nekk opposition jamono dox ba ñun ñu nekk pouvoir mu nekk opposition jamono dox ñu andando nekk opposition jamono dox ñu andando nekk pouvoir mais ben ci circonstance yoyu musul altérer musul changer musul modifier doxalinam ak melokanam nga xam ni respect la fonk doomu aadama yéene ko jàmm vraiment di rendre de grands service aussi à la République donc lii ñu ko defal tey lu mu mérito la euh, ñuy ñaan suñu boroom mu euh, teeru ko ak njëgalam ak yërmandeem xare ko aljanna yi gën a kawe. d'accord mu xam ne réew mi dafa bëri ci wàllum politique. Mhm. yan ban message jàngat ngeen ci am. waaw bi bi bisu tey bii daal du wax du wax waxu politique. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo.